ko yeggalee te am na lu baree bari loo xam ne war nañu ko defaat ci diwaanu Matam moom njiitu réew di Macky Sall neexal na askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Matam ba seen xol sedd ndax nee lu toll ci ci ay ndaw yoo xam ne ci Matam danañu leen recruter nee ñi nga xam ne ñooy chef de village yi kenn ku nekk weer wu dee danañu la jox lu toll ci 50 000 francs ñi nga xam ne ñooy chef de village yi ñoom nag jaajëfal nañ bu baax a baax Macky Sall ndax a kaay ne def na ko en tout cas li nga xam ne mooy bétail électoral gis nañu ko ñoo xam ne daal bu élection jotee rek wala ñu bëgg a falu daal leen di jëfandikoo bëri na ay nervi tamit yoo xam ne maanaam gis nañu leen waaye nag bëri na ñoo xam ne mer nañu ba futu takk ay sagar yu yéene kaay gi di wal fa jëre nee na en tout cas dëgg gi mooy lu mu naqari naqari mooy dëgg ñi nga xam ne ñoo mer jamono ji ci réew mi bëri na genn xeetu bëri koo xam ne fu ko waaye nat daan ko doon tuumal ne dafa luye nit leen yóbbu leen ci diwaanu Podor Mamadou moom nag daan na ko koy weddi ba tëdd sa naaj wa nee na loolee ab complot la yéen kaay gii dalee si ko ñu koy fekk fa njiitu réew di président Macky Sall muy njaay cekkee ñi nga xam ne ñoo dëkk Matam nee na leen dinaa leen defaral ab université waaye tamit dinaa leen tabaxal ab aéroport boo xam ne bu mucc ayib lay doon yéen kaay gii di direct news ñu koy fekk fa Mamadou Lamine Diallo yekk na musiba ak mbelengana ki nga xam ne mooy Macky Sall ci tournée économique bi nga xam ne lay def Mamadou Lamine Diallo nee na sénégalais yëpp yëpp yëpp jamono ci maanaam ñoo tampi diaspora bi tampi Fatick tampi Fouta tampi Mamadou Lamine Diallo nee na nag Macky Sall jamono jii daal lenn la nekkee ci réew mi maanaam jënd li nga xam ne mooy conscience yi maanaam jël nit ñi jox leen xaalis sa ger leen ak nag maanaam bëgg a teg fitna ñi nga xamante ni ay patriote lañu ngir nag bëgg a maintenir ci pouvoir bi waaye nag loolee du ñu ko nangul Macky Sall tey du ñu ko nangul Macky Sall ëllëg ba ñu ñu ci dara yéen a kaay gi de la Tribune li nga xam ne jamono ji nemmeeku nañ ko ci diwaanu Matam mooy manifestation yi bëri na loola am na ñenn ñoo xam ne ni ki démb dañu doon manifester maison familiale bu Macky Sall sax dañu koo taal maanaam fi xam ne daal taal kër gi Macky la nekkoon ay waajuram nekk fa ci département bu Matam la dañu koo daal di taal village d'origine Macky Sall boobu nga xam ne maison familiale ba dañu koo taal ci département bu Matam la nekk village ba ma nga tudd Andulo Madji yéen kaay gi ne na ñi nga xam ne nag ñoo ko taal yàq nañu musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Macky Sall maanaam kàddu yi nga xam ne moom lañ doon wax Macky Sall garaaw na genn xeetu garaaw goo ni ñemi wuñ koo wax yéen bi nga xam ne Macky Sall ma ngi koy def am na ne ni ki démb daan na say amaat ndax nga xam ne mooy Serigne Modou Bara Dolly ak Mbaye Peex seenum oto ci boppam moo jëlaañoo oto ba moo këpp ab 4-4 la dañoo am ay blessure diggante Matam ak Ngidji Logn foofee la accident ba xewee yéen a kaay gi nee na benn ay bés ci ginnaaw rek gisoon nañ accident boo xam ne amoon na ci tournée économique gu Macky Sall bi ba am ñetti agent yu nekk ci leeral yu si ñàkk seen bakkan yéen a kaay gi di source nee na tongal gi nga xam ne ñoo ngi koy tongal ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti Pastef ba léegi nii mbir ma ma ngay wéy ndax manifestation yi nga xam ne amoon na ci réewum Sénégal ci mbiri Ousmane Sonko ak day jàpp gaa ngay weye ndax ci diwaanu Touba am na kuñ fa jàppaat bees am na kuñ fa jàpp ba jël ko yóbbu ko sa kaso ba ndax kookee dañ koo tuumal ne bokk na si ñi nga xam ne ñoo doon yàq RFM Mbàkke yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na géej gi buñ si deful ndànk xale yépp danañ jeex ndax lu toll ci téeméer ca ay xale ñàkk nañu seen bakkan diirub juróom benn ca ay weer yéen kaay gi nee na place bu Malika jamono ci dar nañu koy tëcca yéen kaay gi la Tribune nee na atum 2021 bi ba mu dooree ba léegi am na lu toll ci ñeen fukk ci ay ndaw yoo xam ne faatu nañ ci biir géej gi yéen kaay gi di xëy duñu xibaar naan ñu organisation de coopération de développement économique jamono ji ñoom ñoo ngi nas ay pexe ngir nag gën lawal li nga xam ne moo jëm ci wàllum góor jigéen ci àdduna bi ñoom nee nañu daal dinañu former ñi nga xam ne daal ay député lañu former ay jàngalekat ngir nag ñu mën a ñi nga xam ne ñooy borom ñaari tur yi yéen kaay gi di Vox Populi ak réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ren ji ajug màkk du am waaye rom tamit am bi moo nekk ñaari at yoo xam ne maanaam ñaari at yooyu yëpp amul la waral mooy coronavirus bi yéen kaay gi di esat xëy wax ci coupe d'Europe bi